man néew laa sama pexe jeex na amatuma lu man dund gi mat ngi may gëmmal ak di ma takk ñi may waajal cey maa ñàkk wor manatuma ko julli noonu wax mënatuma ko mënuma soonu ñi ngi may sang ñi ngi may sotti ndox mu ñu def dem ñi ngi may futti jullee nañu ma man teg nañu ma kaw jaag jama jëm bàmmel jubbal bu ma doy man muur nañu ma ñaanal leen ma li ma gis doy ma may waar ak ko fuglu bi ma faatoogul daaw julli dama xim at ataaya di xel bi ma faatoogul daawu ma waxtaan ak nit ñi fi baax dama daa caafaan bi ma faatoogul ku ma gis ku ma gis tooñ ku ma gis xas laa ngi may door mbol dayu diis lool tax yaa ngi ma sam kenn mënu maa xool barzax xudu kaf ndax loo fa jaful doo ka fa fekk ak farle amul li ma gën a bëgg mooy dem dunya ngir wuti ak mbaax faggu ci maya bammel ak xool kayit lëndëm ak mooy ak du fa may nit ndam say jëf day def jàmm nga gis ko benn mu taaru ba nga bëgg a jege ko léeg-léeg day ñaaw comme li ma gis fii ak set bu gaw cey fii yéen waa duniyaa jug farlu ndax dee day te nañuy fuglu sama leetara ku ko jàng dina xam li ma jub loo wax njub mooy maye sama doom yi ma baa nañu leen jàngal alquraan ak sunnata xirtal leen ñuy jaamu buur yàlla bu wér lu ko mooy seen mbir dana am tartar sallallahu rabbi dawman yal na nu yàlla may yiw abada